أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ginnaaw loolu tey mooy ñaareel bi daje ci waxtaan ak yéen ci aji màkk tey sunu tomb bu ñuy jël mooy assafaru wa say'un min aadaabihi wa ahkaamihi tukki ak lenn ci ay tegginam ak ay àtteem ab jullit balaa muy tukki dafa war a jàng teggini tukki ak àttey tukki ndax tukki mooy bawoo sa gox bawoo fa nga dëkk mufaaraqatul watan mooy bàyyi koo sa réew li tax ngay bàyyi koo sa réew nag di dem beneen réew léeg-léeg dina aju ci ay mbir yenn mbir yi dina nekk mbiru diine léeg-léeg nit tukki waaye diine tax mu tukki léeg-léeg nit tukki mbiru àdduna moo tax mu tukki ñaar yooyu yëpp nag dagan na nit mën na tukki ngir diine nit mën na tukki ngir àdduna waaye dañu war a xam lan mooy àttey ñaar yooyu yëpp kii tukki ngir diine ak kii tukki ngir àdduna su fekkee kii tukki jubluwaayu tukkeem bi mu ngi ko teg ci jaamu yàlla comme tukki aji màkk wala tukki jàngi wala tukki woote ji ci yoonu yàlla kon ak jihaad kon tukki boobu day nekk jaamu yàlla su fekkee tukki bi daf ko teg ci lu dagan comme commerce loolu day nekk jaamu yàlla waaye tukki bi bu fekkee dafa nekk ci lu araam comme tukki mooy yàlla ak yàq suuf si soo waa tukki boobu dafay xaraam kon mbokki jullit yi wa yambaxi lil musaafir liman saafara lil hajj dana war ci kii tukki ngir aji aw xayrihi min al ibadat an yaateniya bi ma yali ki bëgg a tukki ngir jaamu ji yàlla na góor-góorlu tukkeem bi mu teg ko ci mbir yi may bëgg a lim bi ci njëkk mooy al ixlaas ixlaasu niya ngalawaay yow mi tukki sellalal sa yéene yéeneel sa tukki bii day loo ci jublu mooy jege yàlla ci sa mbooleem ahwaal sa mbooleem xew-xew sa mbooleem wax sa mbooleem jëf sa mbooleem dépasse na nekk lu lay jegeel yàlla tabaraka wa taala lu lay yokk imaan bu tukki mukk ngir mooy yàlla bu tukki mukk ngir perte jëlee nañ ci hadis saad ibnu abi waqaas radiallahu anhu wa ardaahu nee na ko innaka lan tunfiq nafaqatan tabtagi biha wajha allah illa ujirta alayha hatta ma tajcaluhu fii fi imratik saad ne yonent bi ne ku mu mun a doon ci ñun dépasse bi ngay génne di ko joxe ngir yàlla amul benn dépense booy génn di ko joxe ci yoonu yàlla lu dul danañ la ko fay même dànk bi ngay dànk di ko sexal sa soxna mu koy lekk yàlla dina la ci bindal tiyaaba allahu akbar kon booy tukki fexeel sa yëpp na nga ko def ngir yàlla tabaraka wa taala bul ko def ngir àddina fexeel nga jege yàlla ñaareel mooy an yaxrusa ala alqiyaami bima awjaba alayhi min altaat wa ijtinaabi almuharramat ki bëgg a tukki na fexe mu taxaw ci li ko yàlla sant ci ay topp mu moytandiku li ko yàlla tabaraka wa taala tere li la yàlla digal ci nga topp ko bul buuse sa kër lu dul nga def ko li la yàlla tere ci tukki bi pour nga bako bul buuse lu dul nga bàyyi ko mbokk yi kenn ci ñun su amatee yéene ne day dem aji wala day umra ji na fexe mu sellal ko ngir yàlla tabaraka wa taala na moytandiku rek sama tukki bi àdduna laay uti poñetu àdduna déedéet fexeel nga am yàlla fexeel bul ci déggtalu bul ci ngistalu bëgg nañ ci kii tukki balaa muy génn këram mu bind wasiyaam an yaktuba wasiyatahu wa maali wa ma alayhi min adduyun wa yaruddu alwadaa'i ila ahliha aw yasta'zanahum fi baqaa'iha falajal bi yadillahi taala soo bëggatee tukki balaa ngay buuse bindal sa wasiya ndénkaaneel waxal ñi nga yoreel bor waxal ñi la yoreel bor waxal sa alal fu mu nekk waxal ñoo ko dénk waxal ñaata kër nga am waxal ñaata soxna nga am waxal ñaata doom nga am waxal sa alal fu mu nekk lépp ndax kat yaa ngi dem waaye xamoo ndax di nga delsi sa dund ci loxo yàlla la nekk bul tukki mukk génn sa kër lu dul waxal say bor ko yoreel ku la yoreel sa alal foo ko dénk foo ko denc ngir mbiri kat ci loxo yàlla tabaraka wa taala la nekk mbokk yi bokk na ci bul génn sa kër lu dul nga tuub say bàkkaar tuubal rëccul lépp loo defoon ci lu ñaaw ci lu bon boo tooñee ay nit dama nga jéggalu ji leen ku la tooñ baal ko koo tooñoon demal nga balu ji ko tuubal jéggalu sa boroom jéggalul jaami yàlla yi ndax xamoo ndax dinga delsiwaat bokk na ci an yaruddal mazalim lin nas boo tooñee nit ñi dellool tooñaange gi demal balu ji leen waaw koo jëloon alalam delloo ko koo jëloon ay bagage am delloo ko sàkku ci ñoom ñu baal la jéggulu leen ginnaaw ba nga jégguloo sa borom tabaraka wa taala bokk na ci an yaxtaara li xajjihi aw umratihi nafaqatun tayiba min alxalaali li an allaha tayibun la yaqbalu illa tayiban yow sama mbokk jullit bi bëgg aji bokk na ci ndénkaane yi ñu lay dénk fexeel alal ji ngay aji jee wala nga koy umraana dagan ndax kat sunu borom ne du ma nangu lu dul lu set lu teey soo dajalee alal ju araam aje ji ko wala nga umra ji ko yàlla du la nangul coono doon nga ciy jëlee ak perte sa alal ndax saa yoo ne labbayk allahumma labbayk yàlla ne la kenn woowu la fi te kenn du la fi wuyu fun la woowul boo fa wootee kenn du la wuyu waaye fun la woo boo fa wootee ñu wuyu la waaye fun la woowul boo fa woo boo fa wootee kenn du la wuyu soo jëlee alal ju araam nga aji yee ko wala nga umraa ko boo la baykaa yàlla du la nangul kon booy dem na alal ji dagan yow sama mbokk jullit bi bëgg a aji maa ngi lay dénk nga sori mooy yàlla tabaraka wa taala bul lor kenn ci sa làmmiñ bul lor kenn ci sa loxo bul buuxante ci aj wala umra bul lor nit ñi bul jëw bu rambaaj bul dugg ci jëw bul werante ak kenn ku la tooñ baal ko bul fenn bul wax ci yàlla loo xamul yow sama mbokk jullit bi yëpp nga aji bokk na ci ndénkaane yi lay dénk balaa ngay buuse jàngal nu ñuy ajee jàngal nu ñuy umra mooy tëndikul rek dem di tëñëx tëñëx jàngal balaa ngay dem xamal li la yóbbu xamal fi nga jëm xamal noo fay jaamoo yàlla ndax yàlla tabaraka wa taala nangul la fexeel balaa ngay dem an yatafaqaha fi ahkaamil umra wal hajj fexeel nga jàng nu ñuy ajee nu ñuy umra ñu bëree ngi dem màkk jàpp na ñu ngi aji fekk dañoo dem màkk waaye aji wuñ dem màkk ak aj màkk du benn ñu bari ci jullit yi tey ñu ngi dem màkk waaye dañoo demee ajuñ aj màkk balaa nga nit di ko def day jàng xam laaj ñu leeralal ko mu xam atte yi lan moo ko war fu nekk lan la fa war a def fu ñu war a taxaw fu ñu war a fanaan fu ñu war a yendu fu ñu war a booley julli fan la ñu war a daw fan la ñu war a dox lépp ab jullit na ko xam balaa muy génn biir këram yow sama mbokk jullit mi bëgg aji fexeel nga wattu ndénkaane yi di ñëw an yuhafiz al musafir ala jamii al wajibat wa min azamiha alsolaa fi awqatiha ma aljamaa yow sama mbokk jullit maa ngi lay dénk fexeel nga respecté mbir yi nga xam ne ay warugar la yu tegu sa kaw bi ci gën a rëy mooy julli ca waxtoom nga fexe ngay julli ji ca mbooloo ngay gis ku dem màkk te du dem te du dem ca kaaba ga julli ji bu julli jotee rek mu farax faraxi daal di julli jàkka ya dend ak moom dem ba màkk di biddanti fajar di julli ca dal ba nga nekk dem ba màkk di bañ a dem julli ji ca mbooloo di julli ca dal ba nga dal di ko layee ne am naa mbooloo moo mbokk yi ku dem ba màkk biddanti kooku boo del see Sénégal noo war a mel ku dem ba màkk julli ji mbooloo ca jàkka ja ca kaaba ga yitteelu la kon yow boo del see Sénégal noo war a melaat kon xamal warugar yi war la fexeel ngay julli ca waxtu wa ànd ak mbooloo ca jàkka ja fexeel nga bëri topp yàlla jàng alquran zikri ñaan fexeel lépp lu rafet nga jëme ko ci nit ñi ci wax ak jëf fexeel nga dimbali ñu ko aajo fexeel nga nooy ci julli ñi fexeel ngay sarax yi ñi ñàkk fexeel ngay digle lu baax fexeel ngay tere lu bon yow sama mbokk julit bi war a tàggati ko tàggatoo sa réew jëm ca borom bi tabaraka wa taala ca néegam bu tedd ba fexeel warugar yi nga xam ne moo tegu sa kaw ci ay mbaax nga def ko foo toll ci biir aj bi jàngal quraan foo toll ci biir aj bi fexeel sa làmmiñ bi tooy ci tudd yàlla fexeel ci aj bi deel ñaan lu bari rafetalal ci nit ñi ci say wax say jëf fexeel ngay dimbali ku aajo fexeel nga nooy ci jullit ñi fexeel ngay sarax ñi ñàkk waaye fexeel foo toll ngay digle lu baax fexeel foo toll ngay tere lu bon yow sama mbokk jullit bi sopp nañ ci yow nga góor góorlu ci tànn ay àndandoo yu baax bëgg nañ ki aji mu góor góorlu kem talaayal kàttanam balaa muy dem mu tànn ay àndandoo yu baax àndandoo yoo xam ne booy nelaw boo bëggee biddanti ñu yeel àndandoo yoo xam ne dañ lay soññ ci jàng alquran àndandoo yoo xam ne dañ lay soññ ci tudd yàlla àndandoo yoo xam ne dañ lay soññ ci wax lu baax dañ lay soññ ci bàyyi def lu bon waaye àndandoo yoo xam ne ci ay commerce ah jidda jidda Dubaay patatatata rututututu rek lañ lay soññ loolu bul fexe nga ànd ak ñooñu utal àndandoo yu baax yu lay soññ ci jaamu yàlla tabaraka wa taala bokk na ci ndénkaane yi ñu lay dénk an yataxalaqa al musaafir bi xuluqin xasan fexeel nga jikkowu jikko bu rafet fexeel nga am comportement wa yuxaaliqa bihi nnaas fexeel nga meloog nit ñi melokaan bu rafet kenn du aji di xeex kenn du aji di xuluu kenn du aji di buuxante di duuraate ak a coñcuwaate ak a këddaate ak a gëddaate ab julit bu ko yàlla wërsëgalee woo ko bàyyi moroomam may ko bàyyi moroomam woo ko ba ca kaaba ga war na faa wone melokaan bu rafet war na faa wone jikko bu rafet kon sopp nañ ci ab julit bi bëgg a jaamu ji yàlla na am jikko ju rafet na ko melow ak nit ñi na muñ na jéggale na lewet na nooy na baax bu mu yàkkamti ci benn àtte nay laaj su xamul fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun wa tawaado na suufe-suufelu na teey na tedd na tabe na maandu na am yërmande na am kóllëre moom jullit bi nay jéggale ka jéllale na am kersa na saraxe na baax na rafetal li ay jikko la yoo xam ne dañ koo taamu ci ki war a aji dem ziyaara ji baytillahil haram boroom xam-xam yaa ngi lay soññ ci jikko yi ñu lim léegi foo toll muñal foo toll del jéggale del jéllale nooyal lewetal bul yàkkamti ci àtte yi na nga suufe suufelu na nga nekk ku tedd na nga nekk ku tabe na nga nekk ku maandu na nga am yërmande na nga jokk kóllëre na nga nooy na nga dëddu àdduna na nga nekk kuy baale waaye na nga nekk ku weg ku wegu waaye na nga nekk ku am kersa na nga dëggu na nga baax na nga rafetal jikko yii boroom xam-xam yal na leen yàlla fay yërëm leen soññ nañ ko ci ab julit bu war a bàyyeekoo réewam jublu baytillaahil xaraam di aji ba tey sopp nañ ci kiy tukki an yusi ahlahu bi taqwallahi taala balaa ngay gé ba di bàyyeekoo sa kër dénkaaneel ragal yàlla balaa ngay jóge sa kër na nga leen dénk ragal yàlla waaye tey xam ngeen ne ñi bàyyi ko Sénégal di aji lu ñuy dénkaane mooy balaa maa ñëwaat na ngeen peinture kër gi balaa maa ñëwaat na ngeen peinture biti bi na ngeen defaraat dër bi na ngeen dem ca Samba yoropal mu yebal mu lebal leen nag bu ngand bu ma ñëwee ngeen nganale ma yooyu la ñuy dénkaane nganale foo toll di waa nganale gi fu ngeen ci toll ndax am ngeen nag ndax peinture ngeen ndax dër ngeen ndax tabax ngeen loolu ab jullit naka mooy tandiku yàq kese la nganale bokkul ci aj mooy perte sa alal képp ku ngeen gis mu dem tukki aji màkk ñëwaat di nganale yëg leen ni moom ajiwul woon màkk dafa demoon màkk ndax nganale bokkul ci lislaam kon dénkal sa waa kër ragal yàlla ndax was ragal yàlla kat mooy wasiyatullahi taala lil awalina wal axirin moom la yàlla dénk ñu mujj ñi ñu njëkk ña ak ñu mujj ñi ba tey bokk na ci ndénkaane yooyu an an yuhaafisa ala al udiya wal azkar al waarida ani nabi sallallahu alayhi wa sallam wa minha duwaau safar wa duwaau rukub fexeel yow mi tukki nga mokkal ñaan yi mokkal zikri yi yi nga xam ne moo rot jóge ci yonent bi saa sallam ñuy wax ci mbirum tukki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko ne ki bëgg a tukki am na ñaan yi mu war a ñaan kon fexeel ñaan yooyu nga jàng ko nga mokkal ko rawatina booy yéeg ci oto rawatina booy yéeg ci avion rawatina booy yéeg ci bato yonent bi daana wax ne su ngeen di yéeg wax leen bismillah bu ngeen toogee ci biir ngeen ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar subhaanalladi saxara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun allahuma inna nasaluka fi safarina haza albirra wattaqwa wa min alcamali ma tarda allahuma hawin alayna safarana hada watwi anna budahu allahuma anta alsahibu fi lsafari walxalifatu fi lahli allahuma inni auzu bika min wathai lsafari wa kaabati almanzar wa suui almunqalab fi lmaali wal ahli lii képp kuy tukki war nga kaa def ci sa poos war nga kaa def ci sa saak war nga kaa def ci sa xel war nga kaa def ci sa dënn ci sa xol war nga kaa def ci sa làmmiñ nga koy ñaan sa borom tabaraka wa taala ndax moom mooy ñaani kii tukki mbokk yi wa yambaxi an yukabira kulla ma saada makanan uluwan kii tukki saa yu yëgee fu kawe na yëg ne dafa war a kàbbar saa yu wàccee na yëg ne dafa war a sabbal lii yéen sama mbokk jullit yi lenn la woon rek ci ay ndénkaane yu ñuy dénk ab jullit bi bëgg a bàyyeekoo réewam fas yéene dem baytullaahil haram aji ji néegu yàlla tabaraka wa taala bi tey mooy ñaareelu daje bi bismillahi tabaraka wa taala waxtaanee ci mbirum aj incha allah kon ku ci am question rek bismillahi tabaraka wa taala après mën nañ laa jox micro bi après nga daal di laajte assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh